la lim lay fay fajal nit ki meram demaat yoonam te su boobaa tamit di nga mën a subir les conséquence Adji Sarr da ngay rek daal di xam ne également li nga xamante ni moo la dal yaa ko teg sa bopp kenn teguloo ko ndax tamit nag jigéen am na yoo xamante ni war na mën a ñàkk nga koy def nekkoon rek benn conseil boo xam ne sa sœur moo la ko conseillé waaye Mor dañoo jot léegi ci ay xibaar ne euh, maa ngi koy wax tout à l'heure que ni euh, Yewwi Askan Wi dañoo amaloon ab conférence de presse tey ji à partir de 11 fële ca siège pur waaye léegi-léegi jot naa ci ay xibaar ndax suñuy ndaw Feeling Dakar dañ faa dem fekk ñu daal di rek barricade li nga xamante ni mooy siège pur boobu <laughs> <laughs> yaa ngi wax sàng lu am solo ci yàlla yàlla xaaratul weer bu dee de moom naa ne mais dama xam ne léegi rek ñu ngi koy wax tey dama jàpp ne ba tey jii nii wax dëgg yàlla Ousmane Sonko moom mooy le moteur principal euh, bi nga xamante ni moom moo nekkoon ci ku jóge non seulement waaye tamit yeewi askan bi moom ñu bëgg ko ñu ñàkk koo bëgg donte ni membre la ca comme ñëpp donte ni aussi parti Pastef euh, participant la comme yeneen parti yi mais wax dëgg yàlla moom boo xoolee fee yi ni mu demee nga xam ne euh, en tout cas doon na ci jouer bu am solo te xañ na peut-être am na benn communication boo xamante ni waaye yeewi war nañ ko mën a tenir jamono ji euh, xaj na peut-être loolu la état di contrer ba loolu noonu du am parce que lu bëree bëri ci ay révélation boo xoolee tey Euh, souvent ñenn si ñoom ñu dem si plateau yi maa ngi seetaan démb nguur a mbubb euh, ñenn si ñoom ñu dem ci plateau yi dañuy tenir ay communication yoo xamante ni dañuy apporter ay reponse par rapport ak yenn questions yi nga xamante ni man yow comme keneen mu ngi ko xaw a jaaxal muy indi ay leeral yu bëree bëri ci kaaw Ousmane Sonko dissolution bi ak li nga xam te ni moom mooy euh, arrestation yi fi mu commencé ba fi mu yem ak lu jëm ci wàllu wàllum contumace bi te lool boo xoolee apparemment moo fi nekk ay questions yoo xamante ni xaw na sonal nit ñi à chaque fois ñu ngi si nekk di ci débattre benn bi ci toppaat aussi moom mooy di confirmer waat li nga xam te ni moom mooy gën a euh, dégrader sunu sunu démocratie wax fa dëgg yàlla parce que coalition Yewwi Askan bi du parti Pastef ay kuréel la boo xamante ni ay parti yu bëree bëri ñoo ko bokk kon xañ na peut-être kenn si ñoom ba amee problème teewul ñoom war nañ mën a continuer seen ay activité beneen bi si des nag moom mooy mbir mi lu ma wax sànq rek temps bi fi mu toll nii nekkatul ci euh, xaatim nekkatul ci wax mais lan la moom mooy nag xam ne kat fi nekk nii moom mooy ñu ngi dernier moment. Mm. ñu ji ma amal li nga xamante te ni moom mooy seen ay manifestation bi leen yoon permettre bi leen yoon may amal aussi seen amit euh, seen euh, droit de bi nga xamante ni mooy euh, appel à la résistance bi nga xamante ni aussi yoon may na leen ko amal aussi tamit seen ay forme de lutte yi nga xamante ni yoon may na leen ko moo xam nuñ ko mën a defee te bañ di xool que ni rek barricade nañ duñ def wala interdit nañ wala duñ def parce que boo xoolee jàmbaar comme Ousmane Sonko bi mu fi nekkee woon fare ñoom da loo xamante jël ay responsabilité moom ak ñi mu àndal kanikat lii nii par A wala par B dañu koy def manifester soit ñu autorisé ko wala ñu ñaa ko autorisé on san fout dañuy amal sunu manifestation dama jàpp ne nag taxawaay boobu noonu aussi moom moo manqué yeewu askan bi taxawaay boobu muy démb li nga xamante ni doon na ko def moom moo fa manqué xañ na peut-être ak euh, ki nga xamante ni moom mooy xalifa euh, Sall xaw na fa mën naa ne sax léegi daanaka pour ne pas dire bokkatu fa mais en tout cas wàññi na fa lu bëree bëri ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni noonu la deme mais dama jàpp ne tey loolu warul gën a mën a euh, li nga xamante ni moom mooy coalition bi mais euh, fi ñu jëm moom mooy coalition bi wax dëgg yàlla ñu bëgg ko ñu ñàkk koo bëgg mais bu fekkente ni ci anam bi la ñu continuer xeexal Ousmane Sonko bu fekkee ci anam bi la ñu aussi tamit di wane seen représentativité par rapport ak seen coalition boobu la ñu taxawal nañ xam ne mbir mi naxasaay na nañ xam ne aussi tamit mbir mi jeex na te lii wax dëgg yàlla mënatuma comprendre est-ce que yéen ay opposants ngeen wala déet parce que opposant boo xamante ni mënatuñu dégg nga mën benn activité boo xamante ni dafay firndeel ka yow ba tey yaa fi nekk di opposé wu dama jàpp ne mbir am na leneen loo xamante ni nekk na ci xañ na peut-être euh, euh, souvent comme ñenn ñi xalaat naan nax nañ Ousmane Sonko ba mu ba ba lii yëpp arrivé ko mais lu si am des moom mooy mbir bu fekkente ne da nga sikk moom dara dara arrivé ko nga bañ trahison am ci nam taxawoon démb da ngay taxaw taxawaay bu mel noonu. Mm-hmm. lu la defee comme conséquence nga dégg ko. Bamba siège pur bi daal nañ koy barricade li ko waral nag mooy euh, ñi nga xamante ni mooy coalition Yewwi Askan Wi ñoo fa fas yéene woon na amal tey à partir de 11h ab conférence de presse. waaw mu nekk lu ñaaw maamari ci démocratie. Mm. Euh, bu fekkee Sénégal na dafa bëgg a nekk ci wàllum dictature euh, nit ñi ko wax maanaam ci wàllum pensée unique. parce que booy xool depuis ñu teg loxo Ousmane Sonko ba léegi ñoom nanguwuñ ñi nga xam ne ñoo fare ci kujje gi am rassemblement wala sax ñu janoo ak li nga xam ne moo di euh, taskati xibaar yi ma jàpp ne nag loolu primaire la loo xam ne la euh, lu waru mun a ñàkk la ci démocratie donc bu ñu bokkee nit parti bokk ak nit coalition mu ne ci ay jafe-jafe ñu war nañu àdd wax ak li nga xam ne moo di askan bi mais pourquoi tey ba gouvernement bi bëggee def benn point de presse dañ leen koy. Euh, duñ leen ko aaya dañ koy amal si ni ñu ko war a amee taskati xibaar dem jël information mais pourquoi tey ñu bëgg a xañ ñi nga xam ñoo ne ci kujje gi à ce que tey ñu xamal lan moo ne concrètement ci par rapport ak le cas de Ousmane Sonko ça veut dire que a quelque chose qui louche et je pense que fi ñu nii euh, baaxul fi ñu jëm baaxul parce que démocratie mhm. dafa bëgg à chaque fois qu'il y ait ce qu'on appelle une contradiction dafa bëgg ce qu'on appelle ce qu'on liberté d'expression que kenn ku ne mën a yëkkati li nga xam ne moo ne sa xol mais maintenant bu fekkee manifestation ñu aye janook taskati xibaar ñu aye mais maintenant su boobaa lan moo ci des te moom toogoon na fi nee na ay morceaux yu xonk man loolu ba ko takkee du ko gis kon ça mhm. veut kon fan la jëm concrètement def li nga xam ne moo di wàllam mooy opposé wu génn wax li nga xam ne moo di jafe-jafe mm-hmm. pouvoir également nekk la mooy indi ay li nga xam ne moo di ay leeraange indi également ay leeraange par rapport ak yenn ci interpellation mais maintenant bu ñu nekkee ci réew moo xam ne soo waxee ñu ne war wax même ci dans les télévision sax parfois wóolootuñu dem pourquoi parce que mën nañu dem ñu fekk leen foofu teg leen loxo il suffit que nga yëkkati yenn ci ay mm-hmm. kàddu ça veut tey kenn nekkatul ci sécurité même ñun ñuy toog fii di wax rek dara wóoru ça veut tey Sénégal dugg loo xam ne comme si on est dans une pensée unique boo ñi war a wax war nañu wax génn wax parce que Sénégal li fi am ni moom yaakaar na mosul fi am te ministre de l'intérieur moo fi toogoon ne fi ñu ni nii mooy zéro d'interdiction de manifestation mm-hmm. donc maintenant bu ñu gisee diggante bi ñuy jàppee Ousmane Sonko wala avant ñu koy jàpp ak léegi li ñu fi interdit mais ce serait une centaine ou une dizaine de manifestations donc il faudrait qu'on revienne à la raison encore une fois de plus donc nañu bàyyi nit ñi ñuy interdire ñuy def ay point de presse rek je pense que siège loolu propriété privée la mhm. nit ki am na droit mu dem fa mais récemment je pense que mhm. Malick Gakou excusez-moi bi muy def point de presse am këram mais dañ ko fekk même ñu si kaw sax nañu wàcc mais loolu fan la ñu ko teg il faut qu'on revienne à la raison ñu bàyyi ñuy def waaw en cas ñu ngi lay gërëm euh, di la sant di gërëm également mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi teewlu ci Feeling Dakar TV euh, di gërëm Mor di gërëm Noreyni gërëm ñëpp ñi nga xam ne rek ñu ngi doon ñu teewlu ci kanam tuuti incha allah bu 14 jotee euh, dinañ fi teew ci lu gën a fës ci xibaar ginnaaw gi it Pape Moussa Sow juriste dina fi teew bu ko defee ñu daal di salfaañe waxtaane un peu ci li nga xam ne rek moo di wàllum actualité judiciaire ak le cas de Juan Branco ak Ousmane Sonko muy xiifal ak lan lañ mën a xaar ak wàllum Conté Max loolu incha allah dinañu ko yaatal ci kanam tuuti bu 15h jotee ak Pape Moussa Sow jërëjëf Mame Marie. Mm, jërëjëf Bamba Mor ñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw ñu ngi lay di la gërëm macha allah di gërëm Bamba aussi di gërëm Seydina Ousmane ñoom tax mën naa leen di boole ba léegi rek team beñe bi. team leen jox waaw <laughs> ah, dig ba ci kanam incha allah. d' accord mi ngi noonu maa ngi leen di jaajëfal Mor Bamba yéen ñi nga xamante ni yéen lay partagé loolu émission bi plateau bi deux heures yi c' est pas facile mais yéen a koy assuré bu baax a baax a baax jaajëfal également. Ousmane Noreyni moom mi nga xamante ne bokk na ci groupe bu Bamba bi maa ngi leen di jaajëfal bu baax tey leen de wax ni groupe bi bëgg naa ci bokk lool ndax yeewu lekk ba ñu dafa mel ni nekk na lu baax di leen jaajëfal yéen internet yi nga xamante ne deux heures de temps yëpp yéen a koy consacré wu ci émission bi di partager ndoo ak ñun les avis tey tamit euh, di contribuer ci li nga xamante ni mooy euh, émission bi c'est pas facile nga jënd sa connexion d heures de temps seetaan ay nit yu mel ne Mame Marie nga xamante ne seen xam-xam xëy na yéen ñi seetaan sax yéen a ko ëppale waaye tamit ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax a baax a baax di leen jox dig daje si kanam tuuti à partir de 14h na fi teew ak Mor ci xibaar yi après loolu Pape Moussa Sow na fi teew si loolu dinañ teg wax.